laisse je, je pense que d'abord euh, Birima tu dois être beaucoup plus respectueux parce que munoo woowee cette plateforme une plateforme d'opposition c'est pas vrai ce que tu dis c'est pas nous ne sommes pas l'opposition c'est une plateforme citoyenne qui s'appelle Ñoo Lank dem seeti ñoom Sonko seeti ñoom seet on a essayé de rencontrer Idrissa Seck moom lañ ci jotul on est allé voir Wade on est allé voir les autres parce que pour nous il est important que parti politique yi créé seen parti politique ne ils ont créé des parti politiques pour répondre au pour régler résoudre les problèmes des Sénégalais mm. courant ndox njàng wér-gu-yaram daf ci bokk mm. nous sommes allés les voir et choix boobu ñun ñoo koy def ñoo koy déterminer c'est pas à d'autres personne ñooy déterminer ñun suñu fonctionnement personne naa le droit de nous dicter naka la ñuy doxalee. mais mais nag Malam on vous a reproché. mais comme nag rek mais mais qui n'est pas mais qui n'est mais déglu ma mais qui n'est pas exempt de reproche. bàyyi la notre notre émission souvent souvent souvent des Sénégal certains Sénégalais disent que nous sommes une télévision qui soutient l'État. Mm. et c'est archi faux. Mm. c'est archi qui n'est pas exempt de reproche. kan kan. ma bugg ñu delluwaat quand il su le waa nu mu tuddati. Pape Malick Pape Malick. bu évoqué ni way autoroute à péage dafa am ay et cetera mais ñun bu ñuy décider di marche dañuy tànn de lieux symboliques la place de l'obélisque mooy fan. la place de la nation la place de la nation ça s'appelle mm -hmm. place de l'indépendance mooy lan moo nekkoon place Protet les porteurs de pancarte fa lañ doon taxaw. c'est symbolique ñoom Guy Marius Sagna fan lañ leen jàppee palais biñ leen jàppee pale pour nous l'oppo la meilleure façon d'agiter le système c'était proposer une marche à la place de l'indépendance loolu am nañ ci droit ñoo koy déterminer ñoom moom suñu collective c'est pas à d'autres personne de nous yan choix la ñuy def non am du keneen moo ñu war a dicter choix yi nga xamante ne moom la ñu war a def maintenant ku mu neex bu nit ñi yëngoo nga ne non ay politiciens la ñu c'est des opposants c'est des perturbateurs c'est des amuseurs publics ku mu neex mun nga waxe noonu mais je pense que ñi nekk ci plateforme bi c'est des gens très responsables c'est des gens très responsables pour man on est en démocratie yu demee noonu dañu war di ci bàyyi xel dañu war di ci bàyyi xel bu baax parce que quand il n'y a pas de démocratie aujourd'hui ce qui se passe gars yi ñu ngi ci nag soit disant dialogue national. Mm. un très bu mm. ñu yàqal suñu deuxième partie dialogue national. on on y bu ñu yàqal suñu deuxième bu suñu deuxième parce que dialogue national bi dafay non s'il dama wax wax mu dindi ko. pour 30 secondes s'il te plaît et c'est Papis Diaw qui a la parole. ñun ji ñu leen ne da ngeen def politique acteurs yi ko composé def politique devant tous les Sénégalais. nañ tudd seen tout acteur kan. mais frappe oui dama ni dama ni acteurs yi composé ñoo lànk ñoo ne ay ñoom. comme ñan comme ñan waxal tuuti Janté. Janté syndicaliste. ban parti la bokk. Zoumaro ban parti la bokk. li may wax c'est des faits réels. da ngeen di politique. oui mais non man ay noolaa lay wax yoo xam ne ñoo jiite fi ñoo seeti nit ñi. devant tous les Sénégalais c'est politiciens. mais c'est pas des questions de parti politique non, qui sont évoquées non vous êtes tout. qu'est-ce qui est évoqué dans la manif man bañu ma loolu on parle de quoi dans les manifs on parle de quoi. forum on parle de quoi forum opposant wala parti mais li li malhonnête mooy ngay def politique ñëpp xam la nga far fen Guy Marius Sagna bi ngay wax mais il est dans le parti de Sonko oui nga ne activiste ngeen ko tuddee. non il a activiste ngeen ko tuddee. coalition eh, dama ne bu ma nee coalition da ngeen di politique. affaire nga bokk affaire foo neex laa bokk. dama ne foo neex laa bokk. bañu ma ko. coalition yow yaa bañ li nga doon non yow yaa bañ li nga doon. dafa bokk ci coalition laa lay tudd bu ngeen dee politicien. allez merci yéen ñaar ñëpp. teer na bokku politicien la du activiste. yow politicien nga du activiste. c'est pas vrai ce que tu dis. Papis le le débat